ñeent fukk ak juróom benn Samuwil Sool ak dawda déglu asalaamaaleykum nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub yu mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faw am nanu mbégte ci leen mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu gisoon nanu ne jamono ji topp ci jamono yonenti yàlla yosuwe jamono ju lëndëm te yàqu woon ci nettali xeetu Israël waaye ci jamono ju lëndëm jooju sax gisoon nanu leeru kóllërek yàlla aji sax ji fàttewul woon li mu digoon ibrahima ak askanam ci mbirum ramukat bi naroona a ci xeetu israel noonu gisoon nanu ni yàlla jëfe woon ci dundu jenn jigéen ju tudd rut rut bokkul woon ci xeetu israel waaye gëmoon na yàllay israel ak xolam bépp te bi bànni israel yu bare dëddoo aji sax ji seen yàlla ngir topp diinay xeet yi leen wër rut moom tànnoon na dëddu diinay baayam ngir topp yàlla yi israel noonu gisoon nanu ni rut toxoo ca réewum israel sanc ci dëkku betlehem foofu ci betlehem rut sëyoon na fa ak jenn waayu israel ju tudd boas te boas ak rut amoon nañu doom ju góor ju tudd obed te obed jur yese mi bàyyi yonent yàlla daawuda noonu pexem yàlla ngir musal doomi aadama ci seeni bàkkaan mu ngi doon jëm kanam ndaxte ci askanu daawuda la musalkatu àddina si waroon a soqi te ci betleyem di dëkku daawuda la musalkat bi waroon a juddoo itam turu daawuda siiw na lool ci mbind mu sell mi ba feeñ ci lu ëpp junni yoon sax lu ngeen xam ci daawuda xëy na xam ngeen ne moo doon waxambaane wi daaneloon goliyaat ponkal mi ci mbaq ak xeer kese xanaa xam ngeen it ne daawuda moo doon buur bu mag bi ci israel di yonent bi bind lu bare ci saboor su ngeen xamee mbir yooyu yépp nag lu baax la waaye seen xam-xam ci daawuda warula yem foofu ndaxte sunu xamee ne daawuda buur bu mag la woon ci israel te xamunu lu tax mu mag xam-xam boobu lu munuy jëriñ mbokk yi su ngeen bëggee yaatal seen xam-xam ci yonenti yàlla daawuda te dégg kàddu yu neex te am doole yi mu bindoon ci sabuur nangeen gëstondoog nun tey ak ci juróomi njàng yi ñëw léegi nag ndax xam nga turu yonent bi jiitu woon yonent yàlla daawuda mooy yonent yàlla samuel yàlla tànnoon samuel ngir mu delloo si niti israel ci aji sax ji seen yàlla ndaxte seeni xol sore woon nañu yàlla lool tey nag dinanu jàng ci téereb samuel téere bu sell bi am na maanaa ci biir mbind yonent yi ndaxte dafa ëmb nettali yonent yàlla samuel ak ñetti buur israel yu jëkk ya maanaam sool daawuda ak suleymaan ni nu ko gisewoon yàlla mayoon na bànni israel ay njiit yu melni ni musa yosuwe ak samuel ngir jiite leen te àtte leen waaye yàlla aji sax ji leen goreeloon ci seen buumi njaam ca misra moo doon seen buur yàlla mi leen santoon ñu defaral ko ak tànt bu ràññeeku ngir mu dëkk ci seen biir bëggoon na nekk seen kilifa moom rekk lañu waroon a déggal te topp ko waaye lu ëpp ci bànni israel bëgguñu yàlla yilif leen dañu bëggoon mel ni xeeti àddina yépp te am benn doomu aadama bu mën a nekk seen buur nguuru ci seen kaw noonu ci saar juróom ñett ci téereb samuel mbind mi nee njiiti israel gépp dajaloo dem seeti samuel ca dëkku rama ñu ne ko léegi ndegam màggat nga te say doom jaaruñu say tànk kon falal nu buur bu nuy àtte ni mu amee ci biir xeet yépp samuel naqarlu ci li mu leen gis ñu naan jox nu buur bu nuy àtte te noonu samuel ñaan aji sax ji aji sax ji ne samuel déglul mbooloo mi ci lépp lu mu la wax ndaxte du yow lañu bañ waaye man lañu bañ ngir duma nekk seen buur dañuy jëfe ak yow ni ñu daan def dale ca ba ma leen génne réew misira ba tey dëddu nañu ma ngir jaamu yeneen yàlla kon déglul seen kàddu waaye artu leen te xamal leen sañ-sañu buur bi falu ci seen kaw noonu gis nanu ni yàlla ne samuwel mu def li ko mbooloo mi wax falal leen ab buur yàlla bëggul woon israel am beneen buur budul moom waaye su doomi aadama bañee fu yàlla yàlla du nguuru ci seen kaw ak doole ci saar bi ci topp nag dañuy gis ni samuel falale woon bani israel jenn waay ju tudd sool kon mbind mi nee na samuel jël njaq su def diw tuur ka ca bopp sool noonu la bani israel daan defe bu ñu masaana fal kenn dañu koy sotti diw ci boppam muy yonent muy sëriñ mba buur noonu samuel ne mbooloo ma ndax gis ngeen ki aji sax ji tànn amul kenn ku nirook moom ci mbooloom mépp te ñoom ñépp ñuy sarxole tey ndokkeel naan yàlla na buur bi am fan gudd ci bu jëkk bànni israel bégoon nañu lool ci seen buur bi di sol jàmbaar ju bari doole la woon di ndaw te góor a yew te gëna taaru bépp doomu bànni israel te sut leen taxawaay cib gis nag sool waroon na nekk buur bu baax a baax waaye li nu war a fàttaliku mooy yàlla du fonk li nit di fonk nit saayir lay seet waaye yàlla moom ci xol lay seet sool teraloon na yàlla ci gémmiñam waaye xolam sore na ko fonkul kàddug yàlla te déggalu ko naka noonu ay at gannaaw ba sol faloo ni buur kàddug aji sax ji daldi wàcc ci samuel ne ko metit na naa li ma doon fale sool buur ndaxte dëddu na ma te sàmmul samay kàddu samuel daldi am naqar te mu fanaane ñaan aji sax ji guddi gépp mu jog ca suba teel ngir dem gisi sool amunu jotu jàng ni samuel yedde woon sool lépp waaye mënees na ci jàng benn aaya mbind mi nee na samuel wax ak sool ne ko déggadi mi ngi mel ni bàkkaaru bokkaale te dëgër bopp yam ak bàkkaaru jaamu ay xërëm ndegam gàntu nga kàddug aji sax ji moom it gàntu na la niki buur bi loolu amee aji sax ji ne samuel kañ ngay noppee jooy sool gàntu naa ko ngir dootul nguuru ci israel defal ci sa béjjën diw te dem dinaa la yebal kër yese waa ji dëkk betleyem ndaxte tànn naa ci biir ay doomam ki may def buur samuel tontu ne nan laay deme sool dina ko yëg te dina ma rey aji sax ji ne ko nanga yóbbaale wëllu te nga ne dama ñëw ngir jébbal sarax aji sax ji nanga woo yeese ca sarax sa dina la xamal li nga wara def te nga diwal ma ki ma lay wax samuel def li ko aji sax ji wax te mu dem betleyem magi dëkk bëtit daw ca kanamam te naan mbaa jàmm la indi bi loolu amee mu tontu leen ne jàmm rekk dama ñëw ngir jébbal sarax aji sax ji sellal leen seen bopp te ñëw ànd ak man ci sarax si mu wax ñu sellal yeese aki doomam te mu woo leen ca sarax sa bi ñu duggsee samuel gis eliyab te mu ne ci xelam ci lu wóor ki aji sax ji fal mu ngi fii ci kanamam noonu aji sax ji ne samuel bul jàpp mukk melokaanam ak taxawaayam ndax gàntu naa ko aji sax ji du fonk li nit di fonk nit sayir lay seet waaye aji sax ji xol lay seet yeese woo amina dab te jaare la ko fi kanam samuel te samuel ne déedéet du kii it la aji sax ji tànn yeese jaare la samna te samuel ne aji sax ji tànnul kii it yeese jaare la juróom ñaari doomam yi fi kanamu samuel te samuel ne yeese aji sax ji tànnul kenn ci ñoom gannaaw loolu samuel ne yese ndax ñi ñooy say doom yépp te mu tontu des na ki gën a ndaw waaye mu ngi sàmm xar yi noonu samuel ne yese yónneel ñu jëli ko ndaxte dunu tàmbali te ñëwul fii yese yónne ñu jëli ko fekk na dafa góor a yiw ak xar kanam gu rafet aji sax ji ne samuel jógal te diw ko ndaxte moom la samuwel jël bejjanu diw ga te diw ko ca digg ay magam xelu aji sax ji jàpp daawuda dale ca bés booba ak la ca topp noonu gis nanu ni yàlla fale daawuda mu nekk buuru israel gannaaw sol waaye li ngeen ci war a dégg mooy daawuda nekkul woon buuru israel ca bés booba daawuda waxambaane rekk la woon te àpp bi yàlla tëraloon ngir mu nguuru ci xeetu israel matagul woon daawuda waroon na xaar lu ëpp fukki at sax laata muy toog ci jalub israel noonu daawuda dellu woon na ca tool ya wër dëkku betleyem di sàmm tey wottu juru baayam daawuda sàmm bu baax te takku la woon te ragalul woon dara ndaxte wóolu woon na aji sax ji ci misaal dafa amoon bés daawuda di sàmm xari gaynde fëkk ci benn wante daawuda dafa koy dàq ba dóor ko nangu xar mi ci gémmiñam su gaynde bëggee xeex ak moom nag daawuda daan na ko jàpp ci put xoj ko ba noppi dóor ko rey ko waaye daawuda yemul ci nekk sàmm bu baax rekk mënoon na xalam ak woy itam xelum yàlla xiiroon na daawuda mu fent taalif yu bare te bind leen ci téereb saboor cëy ni daawuda bëgge woon borom bi yàlla ak kàddoom bëgg nanu àggale sunu émission tey bi ak ay jukki ci sabooru daawuda fex leen xalaat ci daawuda mu nekk ci tool yu naat ci biir xar yi di xalam di sant yàlla ci ay woy ak ay cant yu tukkee ci xelum yàlla déglu leen ko cëy aji sax ji sunu boroom ni sa tur màgge ci kaw suuf sépp cey aji sax ji sama kàttan ni ma la bëgge yow aji sax ji yaay sama dund di sama tàtt ak sama xettalikat yaay sama boroom di sama doju làquwaay ak sama kiiraay sa kàddu niit la ci samay tànk di leer ci sama yoon maa ngi denc say wax ci sama xol ngir bañ la tooñ yoonu aji sax ji moo mat di dekkal ruu seedes aji sax ji moo wóor di yeeñi xamul ndigale aji sax ji ñoo jub di bégal xol deesu tëkkale ak wurus buy wurusu ngalam sax ñoo gën a neex lem muy lem gi ëpp tem-tem ñoo may artu man sa jaam ku leen sàmm am yool bu rëy yàlla aji sax ji mooy sama sàmmkat looloo tax duma ñàkk dara damay toogloo ca mbooy gu naat di ma tette ci ndox yu tey di yeesal sama ruu damay womat ci yoon yu jub ndax turam su may jaar sax ci xurwu lëndëm këruus duma ragal dara ndax yaa ngi ànd ak man sa bantu sàmm ak sa nguul seral nañu sama xol waajal nga ma añ dëj ko fi sama kanam janook samay noon diw nga sama bopp sama mbaatu fees ba rembat ci dëgg mbaax ak cofeel ñoo ma wër sama giiru dundu gépp te dinaa dëkk ci këru aji sax ji ba faw amiin mbokk yi nu ngi leen di gërëm ci déglu bi ci njàng mi di ñëw danu fas yéene jëm kanam ci nettalib daawuda ba gis ni yàlla ànde woon ak moom bés bi mu jànkoon jànkoonteeg Goliat ponkal mi su fekkee ni am ngeen laaj ci lu nu jàng tey bind leen ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 saint yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li yàlla waxoon Samuel ba muy tànnal Israël buur bu bees mu ne ko aji sax ji du fonk li nit di fonk nit saayir lay seet waaye aji sax ji ci xol lay seet